asalaamaaleykum wa rahmatullah mes amis des internautes ñoo ngi leen di nuyu di leen di ziar waa étoile jamono TV ñu ngi leen di nuyu di leen di tey nag ñu leen di indil waxtaan jàngat ci réew mi muy euh, dénaturel parce que réew mi léegi ñi ci naturel bëriwul parce que kii ngeen gis ni sama ginnaaw euh, muy Tandian euh, li ko dal mën na dal ku nekk actuellement nag réew mi. dafa jaxasoo koo gis mu ngi enregistré moromam koo gis koo munti toogal léegi confiance amatul ci kenn balaa ñu leen di indil suñu commentaire ak suñu waxtaan ak suñu gis-gis dañ leen di indil tànjaan ak xew-xew bii ko dal ñu bokk déglu te ñëwaat. bokk ci sax 2024 bay day wala ñàkk gañe troisième mandat moom xalaatu ko gars yi nañ ko cravaché nañ ko. xama ni man businessman laa fii gis nañ lu fi xew gis nañu Cheikh Yérim Seck ko waayel sa fee man sama intérêt laay liggéey la ma ciy lijjanti lijjanti naa si nga seen ginnaaw kër gi foofu ci côté géej ndax nañ ma fa ngandim terrain yor naa samay kayit yor sama lépp man je suis un businessman lijjantiwu ma leneen voilà yow ma seen carte APR ma APR suma dew ma seen meeting dew ma seen am non calme la nag gis nga sénégalais da moom nar et puis euh, jamono ji réseaux sociaux la ñuy gagné te Sonko dafa miine réseaux sociaux yi ndaxte jeunes yi ñoo yor réseaux sociaux yi liggéey ñoom de man enquête naa sama xaalis yàgg na xam nga moo tax par rapport su ngeen yoon nan APR la du APR ma ne ndeysaan comprendre ñu xamuñu si ban business ak ban logique sax laa dugg par que dama doon nekk gars yi liggéey noppi bàyyi leen kër ci kër ci amul benn njëriñ kenn ci ñoom gorew ci moo tax ba ma ciy duggaat nii di defal ay journal di wax dama leen ne nii am laa ciy def par la force bëggaat buntu yi gis nga ma ci waxtaan ak benn kër mu ne ma Tange gis nga réew bi soo ci bëggee dox il faut faire avec les grands et parler dans la politique nee na politique tànk yaa ngi toog jàpp sa jaamur yàlla dañu naan kii mais tànk yaa ngi commencé wax ñoom ñoo lay ragal benn par benn benn ñoom ñoo lay wool seen bopp te seen intérêt moo leen yëkkati yow xoolal sa intérêt keroog xam nga maa ngi lay naan Bougazelli bi nga ma woo dama foog nga jàppale ma euh, man pare naa lépp loo bëgg mën na loo war laaj mën naa la ko jox foofu da ngay dem jël li ngay jël su amee benn wax nga waxal ko ko romb fële bàyyi gars yi di saaga wala di expliquer su ci paree moo xam su ci parewul moo xam parce que décidé woo Cheikh Yérim Seck noonu la def ba nekk fi millionnaire la yor fi ay këram yu dul jeex donc nag luñ ko saaga saaga mi ngi ak suturaam mi ngi ak teraangam yor ay këram yor ay bigasam donc nag doo nekk ci milieu ba génn ci doo ci yor dara man sama bopp laay lijjanti ñoom moom dañoo def échec carrément mooy sooy daanu fu ne ngay doon Macky moom lii moom dafa leeral carte bi 2024 da daal ay bagages am da toogi ndànk jàpp njàmburam waaw la des nag ci fii ak 2024 ku ci mën a profité loo ci mën a lekk nga lekk ci jeex na tàkk waaw mais ñoom pare nañ ci te commencé gisante gars yi te gars yi ñoo lay soxla moo la gis nga ñun du ñun ñooy soxla pouvoir ñoom seen bopp ñoom ñoo ñuy soxla parce que ñun ay porteurs de pouvoir la ñu ñoom ñoo ñuy soxla man mosuma soxla waa APR ñoom ñoo après ñoom ñooy gis sa influence après ñooy ñëw ci yow mosuma leen gëm politique daal ngay xool sa intérêt parce que ñoom ñëpp yem gëmuma ci seen mayen yow nga xool sa intérêt xool nooy fajee say soxla tout simplement bañ mel ni Fatoumata Ndiaye buura tampi xeex ñi saaga sa ndey def la lépp amoo ci oto amoo ci kër amoo ci dara di yor ay bor di ñaan nit ñi ay dix mille francs yooyu moom wax dëgg yàlla mooy loolu man keroog bi ma envoyé message ne ma naa ko lebal dix mille francs euh, waaye falam dafa jeex dama naan ndeysaan politique bay bëgg a dee te mënoo am dix mille francs Fouta Tampi ma ko Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi bii nga xamante ni moo doon xeexal Macky Sall di yuuxu kerti kerti ñiy saaga ndeyam kerti kerti non jour mooy jour ma tourné moom émission mu génn xam naa si la am problème courant mu yónnee ma message premier jour boobu sax jour boobu laa koy soog a gis jour boobu moo tax ma ne yow nit ki soo koy ñaan sax da ngay nit ki waaye maa ngi soog a toog ak yow asalaamaaleykum wa rahmatullah waa étoile jamono nuyu naa leen de ziare naa leen bëgg naa ñoo ko déggandoo mbokk yi dégg ngeen li mu wax muy li ma lay wax rek ci sénégalais bu faux Sénégal léegi presque ñëpp faux ñu baal ma ci kàddu yi parce que Tandian ku déggoon ni mu doon wax ak engagement yi mu doon jël vraiment da ngay yaakaar ni li mu doon wax dëgg la ci moom mais finalement dégg ngeen ko li mu wax da doon nax waa APR lekk na seen xaalis euh, affaire bi complot la te leer na ci kanamu ñëpp waaye nag bul naagu yow mi nga xamante ni ni autorité nga wala koo munti doon xamal ni léegi sénégalais boo munti toogal bu dee cent quatre-vingt-dix-neuf bi dañ lay enregistré naka la ñuy mën a def nag ba delluwaat ci sénégalais bu am valeur bi ak jom ak fulla ak fayda bi ñu xamee woon léegi fexe nañ ba ñàkk suñu système ci problème mu enregistrement yi ba kenn wóolatul kenn mbokk yi yow mi may seetaan yow mi may déglu képp koo toogalati na nga ci bàyyi xel sinon rek yaa nga ca mbalit ma